volontaire du du du du PIPADES kañ ngeen leen di est-ce que di ngeen leen recruter. le PIPADES c'est. bon c'est ça qui moo volontaire. du léegi wax la nag benn jàngoro boo xam ne fa la ko. parce hmm. qu'il y a tellement d'abréviations. Euh, tellement que euh, suñ ko leerul rek des fois je peux. doo doo mën a xam. ça ça prend peu de temps quand même pour ma donc PIPADES je sais pas. les volontaires de l'enseignement. non les volontaires de l'enseignement ça c'est euh, du temps d'Ablaye Wade. mais euh. ce type de volontariat euh, c'est comme euh, les, les les les enseignants des classes passerelles c'est-à-dire aujourd'hui il y a beaucoup non, de de de type de volontariat bële kooku dañu déggoo woon il un déficit à l'époque et déficit boobu de façon spéciale ñu ne dañu dem recruter ay volontaires ak benn niveau boo xam ne ñëpp gis nañu en fait ni mu euh, faire baisser donc la qualité de l'enseignement mais là la les recrutements déjà il faut un minimum de bac les yi danga war a am euh, encore une fois les diplômes euh, la formation professionnelle mais yenn saay tamit mën nga def concours bi euh, li nga soxla doo ko am mu am donc benn recrutement spécial recrutement spécial boobu aussi soo koy def boobu li ngay jiital ak li ngay privilégié mooy ñoo xam ne déjà def nañu formation bi maanaam demoon nañu Pastef nekkoon nañu ay enseignants ay instituteurs ñu tamit nga jéem a épuiser stock boobu donc euh, volontaire comme ni mu amee woon loolu amatul y vraiment ay process pour jéem a garantir un minimum en termes de qualité boo xam ne di dugg dans le système euh, donc euh, volontaire kenn waxatu ko euh, maintenant nag y a un déficit kii la là et il y a des recrutements qui doivent se faire euh, il y a un déficit de 5500 environ Euh, bu am et là nous devons recevoir cette année ay 1500 environ yoo yoo des sortants yuy dugg donc le déficit day wàññeeku jàll de 5500 environ 3000 et quelques donc il y a un déficit de mille et quelques enseignants yoo xam ni qui sont sur la table et nous sommes en train de nous organiser pour présenter ko donc aux autorités pour ay recrutement mais recrutement googu dafay jaar aussi ci normes yi maanaam ci process bi euh, ñu former leen et cetera mais même loolu soo jëlee un recrutement jël ñoo xam ni am nañu formation bi mais dina des toujours peut-être un gap buy des nga combler ko mu nekk un recrutement bien spécial mais euh, la logique mooy loolu su dee mën na bañ a am nga jaarle ko toujours par la formation par des diplômes professionnels ou par des gens qui ont déjà reçu une formation euh, donc de d'instructeur passé par le FASTEF à euh, la donc en ce moment ñooñu ngay privilégié encore une fois il y a un gap de trois cent et quelques euh, trois mille cinq cents environ enseignants incha allah war nañu posé sur la table donc de du gouvernement du premier ministre chef de l'État donc demande boobu pour mën a résorber Gabou. alors ils disent que les volontaires du PIPADS e ce sont euh, des volontaires communautaires. yow am na yow da nga am euh, <laughs> euh, non mais mën nga jël sa portable ah. non non je peux ce sont des volontaires communautaires qui agissent dans les classes préparatoires. waaw je crois que c'est à peu près euh, même logique bi que li ma doon wax. mooy passerelle yi classe passerelle yi mais mais encore une fois nous sommes ouverts et c'est vraiment là le maître mot mooy tout cela qui participe ci effort éducation ci euh, faire progresser école euh, avec ses volontaires comme ni nga ko waxee avec ses euh, classes passerelles ñooñu ñëpp le ministère ouvre donc ses portes pour déglu leen xool nag la ñu mën a jàppale donc ces acteurs là ñu progresser mais encore une fois avec la valorisation de la fonction enseignante la professionalisation de la fonction enseignante pour garantir ko parce que dañu bëgg a tirer vers le haut bëgguñu tirer vers le bas donc ñëpp ñoo xam ne jàppoon nañ ci nekk passerelle comme ni ngi leen ooy noonu PIPADES mm-hmm. ba on va les écouter puis xool aussi comme je disais tout les acquis yi ñu am nak la ñu koy mënee prendre en compte là aussi donc ça peut être la même